ci la gàttañ lu xam-xamu fiq rek ci la bu fekkee ne nekkul koo xam ne dafa fab àllaaxiraam teg ko ci kaw àddunaam di ko xalaat fu mu toll borom xam-xam boobu nga xam ne xam na fiq te soxla woowul tasawuf xam-xam bi mën na koo jëlee ci werantee rek ak dàggee mën na koy puukarewoo mën na ci rëy rëy lu ci kaw jaami yàlla yi amaan sax mu defee ne loolu mu xam rek ay xam-xam beneen xam-xam nekku fu bu ko defee ak perte la koy dikkal ëllëg ndax sharia ci boppam dañ ko tabax ci kaw taxfiif ak yusr ci saaba yi seen jamono bi ñu fi nekkee buñ masee ne diw day ku xam diine la mooy ki nga xam ne ni ko sallallahu alayhi wa sallam indee diine ji muy tawxid fiq tasawuf lépp ci nekk moom lañ daan wax ku xam diine bi nga xamee ne dem nañ nag ba xam-xam yooyu bari nit ñi jàng ko torop kan nit rek fete wo lepp diko ko dana bari ci mom ñu dal di seddaliko def li ñuy wax taxassus manam rek euh, ñi fete wo jang tawhid rek ñi fete wo jang fiqh ñi fete wo jang tasawuf lolu motax ñen ñi nga xamni fiqh rek liñ xam japp ne ñom liñu ham xam moy xam-xam bi dong doyna la rek pour nga xam diggante fiqh ak tasawuf nga japp julli tay wala jamu yalla gu mu doon daf nan la boo fabee ndox moo xam ne dara soppikuwul ci moom du meloom du xetam du cafkaam nga jàppe ko jublu penku kàbbar suturaal sa awra bërëb bi nga nekk laab li nga sol làpp nga jàng faatiha ak saar rukkoo ba def ñetti rakka muy timis wala ñaar rakka muy suba wala ñeenti rakka muy tisbaar wala gee def nga li la waroon kenn amatul lum lay wax tasawuf moo lay xamal ne la léegi julli déeyaa léegi yàlla la li muy jëriñ mooy raxas xolub jaam bi bi ngay jàpp lu tax ñu sant la ndox moo xam ne dara jaxasoowul ak moom ndox dafa am li ñuy wax raw rawxaaniye rawxaaniye moo leen ko mën a tekkee ci wolof moo di xanaa daal barke wala ngërëm yërëmande yàlla wala ngërëmam wala leeram boo ko jàppee sa cër yooyu nga ko raxase dana disposé sa xol dana mën a tax leeru yàlla mën a dugg ci xol bi boo taxawee jublu penku kaaba gi nga jublu moo représenté yàlla ci kaw suuf ci kaw ni mu déglee nu jaamoo ko ko ci julli bi nga kàbbaree woon nga ne da ngaa yàlla contrat diggante bi ba ba ngay sëlmalu moomatoo fu dara loo fu def sàcc nga ci julli fuqaha yi ñoom dañ naan la boo sàccoon alali jaambur ci biir julli ngeen di julli xaalisam wa da nga for ko it gannaaw jëfuloo jëf yu bari walbati koo woon gannaaw penku sa julli wér na boo xooloon loo araam it sa julli wér na lépp loo mën a def te sa julli wér na tasawuf moo lay xamal ne la fi nga kàbbaree ba fi ngay sëlmale fépp fi sa xel génne ci yàlla wala mu génn ci li ngay def rek béréb booba duñ la ko fay ndax neen la kon bi nga xamee ne armal nga yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla yaa ngi yang mom, alxuraan ji ngay jang, wax yàlla moo ko njëkk a jàng nga di ko barteeloo ngir gën koo jege taxawaay bi ngay taxaw yaa ngi ci fas toraxlu bi nga dengar lunk gi nga lunk da nga lunk ci kanamu màggu yàlla gi pour wane ne yow nangul nga yàlla léppam sa njaam mat na te mooy sa borom moom la foofu toraxlu googu nga fiy fas dafay laabal sa xol am na lu muy jëf ci saxol bo su sujjootee itam li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaam waxtu mu gën jege borom moy waxtu mu keppé ab jëm ci suuf ndax bërb bi nga gëna fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko keppé ci suuf si ngay dëgg wone nga ne wàcc nga wone nga ne yaa ngi toroxlu wone nga ne yàlla kat maa ngi lay jox sa xaq cenn ma ko mëne sharia moo lay xamal ne la hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ndax kenn ci yéen bu amoon dex ci buntu këram bis bu ne juróomi yoon wala bis bu ne mu fóot ci juróomi yoon ndax dana dese tilim ñu ne ko déedéet yow yonantu yàlla bi mu ne leen noonu la julli juróom deme day laabal xol ki muy laabal xolam day mooy ki nga xam ne bu koy def day toraxlu defe ko ko sante waaye du ki nga xam ne bu koy def aada ji mu ko aada woo tàmm rek day kabar xelam di dem ci yeneen ba ba muy sëlmal kooku bu ko boroom fiq yi nee sa julli wér na it waa tasawuf daañu xam ne kooku julliwul ndax julli dafa war a indi ragal yàlla kon bu nu bëggee song tasawuf war na noo wax jullit dëgg na muy demee almuminul xaq jullit dëgg melawum war a melawoo ba mu jàngee tawxiid jàng sax ba noppi balay soobu na fekk ne moom du jëfandikoo lu dul lu dagan lekkam na dagan li muy sol na dagan fi mu dëkk nay lu ko lew fi muy tëdd nay lu ko lew bu mu dugg ci dara lu ko lewul bu mu ko def ci biiram bu mu ko wax ci lamiñam bu ko defee sëyam itam na fexe ba muy sëy boo xam ne bii yoon nangu na ko muy lu tegu ci yoon loolu bala ko mën day nit koo xam ne dafa muñ ak muñam dafa mat ndax lislaam lim mu njëkk sant muñu ci jiitu sallallahu taala alayhi wa sallam nee na ak sabru nisful imaani mooy genn wàllu ngëm muñ nag nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqarin ni mu ko waree ci lu metti waree ko ci naqar lu naqari ware ko ci ñàkk noonu la ko waree ci bu nekkee ci xéewal ndax ni ngay muñee ci xéewal mooy lu xéewal gi bari bari doo bew da nga ko sant na nga ko war a sante du la tax a rëy du la tax a puuk réew ci kaw kenn dangay ngay wàcc ba fa nga xam ne mooy sa place nga yem fa muñ laaj na julli julli ci boppam maanaam laaj na muñ asaka laaj na muñ laaj na muñ aj noonu naafile noonu jihaar noonu beru noonu ndax waxoon nañ ne jullikat bi buy julli fépp foo xamee ne xelam génn na ci julli gi wala génn na ci yàlla béréb booba du fa am dara kenn du ko fa fay kon faw